fi mu nekk nii nag ñu ngi fii nga xamante ne mooy peten sel peten sel xaw ma peten sel peten xorom peten sel sel mooy xorom léegi nag euh, yéen ñiy seetaan seen émission Rich-mon Djizz ñuy ànd chaque 10 heures bu nekk euh, lundi ba jeudi waxoon naa leen ko ba tax na képp kuy bëggee émission bi wala nga yàq say nelaw di ko seetaan maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga xam ne ñi ngi ci seen bureau yi ñii ci seen salon yi bàyyiwuma kenn yéen ñëpp jox naa leen loxo di leen may li nga xamante ne mooy émission ba fin di ki nga xam ne moom laa àndal mu ñàkk ki ñaan lool muy mbis kii mooy Mister Mbis sama coof bi ki mooy mbis <laughs> ah waa léegi xaar ma xaar ma gaaral sa camion léegi nag fi mu nekk émission bi tey nii la demee ba tax na dañuy gërëm ki ñu solal euh, ki ñu solalati kii nag mooy Fatkine Ndour lii la def ci taybaas taybaasu été la Fatkine jërëjëf mooy borom Quoi de Neuf boutique Quoi de Neuf design euh, Fatkine Ndour toj na fi. waaye duñ bàyyi tamit ki nga xam ne moo joxe greffage bi kooku mooy salon sopp sëñ Babacar si ñu koy wax ummi Gueye euh, Colobane la dëkk salon baa nga euh, bul duwaañ kon ummi jërëjëf toj nga fi nee naa la ummi mënoo def lu ñaaw ndax xadindooy HLM 3 ajaratu fatlaay kenn toj nga fi ba tax na quoi de neuf boutique jeexul quoi de neuf boutique lii la def ak li ba tax na fi la quoi de neuf génn def ba mu rus man yow na nga def may fii noo tudd man Rabi mais raa bi da ngaa poté yow. barki yàlla yaa ma gën a poté. an sa talboo sama talboo mu ngi kër ga. Ah. waaw mais raa bi yow noo koy reetaanee. <laughs> yokkal ma ko. <laughs> waa raa kan ngay nuyu ci clip bi ngay ñaan ban clip ngay ñaan. man maa ngi ñaan ndongolo. ndongolo waaw kan nga may sama yaay. di may sama doom. di ko may sama xaritu jëkkër yi yëpp. di ko may yow mi poté. Ah. ah dégg yow la wax ci bi yaa ngi koy seet. jour. Ah. war rasulaay. ñu yokk wala ñu arrêté. yokkul leen ba ci kaw. kenn du ba ci kaw walla nee na émission bi ñu yokk ko ba ci kaw kenn duñu téye ba tax kookoy raa bi euh, may nañ ko nongoloo bi képp ku a may nongoloo bi may nañ ko ko def ngaangal maa ngi nongoloo bi man sama yaay ak paap sama maam am nga miñoon soli déedéet am nga talboo déedéet fa doo koy ñaanal yàlla <laughs> koy nuyu ci nongoloo bi waaw nongoloo bi maa ngi ciy nuyu samay doomu day Mariam si di ci nuyu samay mag ñoom Binta Diagne ak sama mama Ngoma Ngoma xam nga nuyu waa élèves RFEFS yi xam nga gars yi ni di ñëw maa ngi nuyu ñëpp daal. doo ci nuyu doo ci nuyu xam nga. xam nga. maa ngi ciy nuyu xam nga. maa ngi ciy nuyu xam nga. Mia waaw kooku moo nekkoon Mia Diagne kaay leen yéen élèves yi kaay leen nii. kaay leen ma pëtaxal leen ci nongolo bi. waaye yow de na nga def. maa ngi fi kaay xoolal kee. kii ne ko mbisaan na nga def mbisaan na nga def léegi may ko nongoloo bi nga may ci ku la neex maa ngi koy may sama yaay ak sama papa ak suñu waa classe yi yëpp ñu àndal maa ngi la kay may yow tamit ah. waa maa ngi suivre émission bi waaw maa bu baax loo ci wax émission bi amul lu mu neexeewul boole ci poten roog turandoo billaay waxal waxal waaw ma ne Amina ñun ñu ngi lay bëggee ñun dañ lay seetaan xool ni nga koy waxee moo ne ay talbo ay yu neex yooyu xeet yu neex yooyu yu neex yi ci benn ay Talbo ay sa Talbo ay ay Resmond Gis bi yëpp dañuy dal xam nga Resmond Gis ay waaw léegi nag benn kilo laa bëgg mooy. ndongolo bi laa lay may nuyu si ku la neex. caxagun bi nag. caxagun bi après naa la ko buuñaa mais nuyul ku la neex ci ndongolo. ndongolo maa maa ngi nuyu gars yi ay ñoom nu mu ay ñoom Mbaye ay ñoom Njool ay Njool ay ñoom nu mu euh, euh, Jibi ñëpp daal maa ngi may ñëpp ñu ma xàmmee quoi. yow sa façon reetaan nan la. Mm, Hmm. voilà ba tey yéen nga xam ne yéen a ànd ak ñun euh, ci seen biir émission Rismon Djizz euh, waxoon naa leen ni bu ñëwee fii fii nag euh, si Péténsel xaw ma pété naka pété sen <laughs> ah. pété sen. xaare léegi ma wax ko man mënu ma wax pété sen léegi fii nga xamante ne mooy pété. sen. Petersen waxoon naa leen bu ma ñëwee ba Petersen affaire yi dootul rismon ji day dégradé ndax Petersen dafa neex nee naa leen euh, dóorkatu waar yi ci ndakaaru yëpp fii lañ nekk ba tax na nongoloo bi jox naa ko képp ku nekk Petersen ak képp kuy marchand ambulant parce que nee naa marchand ambulant yi kii di nongoloo wëy na leen ba dee mosu leen a fàtte moo tax nongo yit ñu koy ñaanal foofu mu nekk suñ boroom fekk ko fa ak sëñ Fallo na nga def ça va yow poté nga de dama poté ba yow rek laa doon wër. Ah. ba ma taseeg yow damaa sant yàlla julli ci Seydina Mohamed yow rek laay wër. ana sa talbo. mu ngi fii ci ruq bi rek. eh mère bul daw kaay nii taxawal. mu ngi ci bi talbo baa ngi ci ruq bi. dama talbo bi lu muy def ci ruq bi. dama koy nëb dama bañ xale yi ndaw yi gis ko di ko jël. piccet mi ñett dama koy waaw loolu laay bañ ñu gis ko moo tax ma nëbb ko. Ah. bàyyi ko ci ruq bi rek. yow ban dédicace ngay maye fi. man damay rek laay ñaan waaw. koo koy jox maa ngi koy may sama xarit yi ci Petersen yëpp sama xarit yëpp damay jaay sama client yaa ngi taxaw. waxoon Rismon Diis Rismon Diis. Rismon Diis. yow yow noo koy dagatee yow en tant que jeeg bu Rismon. dama koy dogat dogatee ba mu dogat dogatee ma may ko sama xarit yi ci Petersen yëpp di wa dóor waar. ambulant yëpp di ko may Sala di ko may nday Faatu di ko may a Jenn di ko may Mariama mi taxaw Adja sama xar doy na doy na waa ji neel neel teg naa foofu sama teg sama la yow koo koy jo maa ngi koy may sama jabar nabu di ko may ndeexadi di ko may nabu saw Zal ñëpp maa ngi leen koy may ak waa PTS de maa ngi leen i béggee di ko daggate nag. na nga def. waaw fi nekk nii nee na day rab déglu leen ko dafa am benn cassette bu bees bul daanu sama kaw nag yow nee dafa am cassette bu bees léegi wa rab rabal rabal. waa léegi waa léegi doy na doy ba beneen yoon ok good yaa ko yoon waa ok jaajëfatee maa maa ngi lay fay Amina Potéris Mon Diis mi saf gone yeeg mag ñi maa ngi lay fay. waa maman noo tudd. defal ba mu baax defal ba mu baax. defar ba mu tëb sala ba laa tudd. waa Sénégal yow sa talboo nag. sama talboo nga ca kër ga doom di ma xaar. defal rek. léegi Assane Ndiaye bi ma lay may yaay booy kan nga koy may. maa ngi koy may Ndey Fatou Sakho sama xarit Ndoura faat Fatou Diame Maymuna Diaw maalaw <laughs> maalaw sama lawbe Moussa sama doom Baye Serigne Mariama di ko may Souley Thiaw Teranga di ko may nagge ba sama xarit di ko may jaare ba sama mag. waa léegi yow ban fi mu nii reetaan bi bees bi génn yow say feemu reetaan jox ñu ci benn. nee. ana sa Mignone Jolie. waaw sama Mignone Jolie mi ngi kër ga. sa Mignone Jolie ak kan ngay nuyu tey ci émission. instant ngi nuyu Mariama du nuyu sama yaay du nuyu sama goro Jeeba Ndiaye du nuyu tam sama xarit Souley Thiaw du nuyu waa PCSL yëpp. bàyyiwuma kenn daal di nuyu na Amina Poté ak borom TFM muy Youssou Ndour ki xew ci jamono borom TFM di xale bu ndaw waa léegi nag fi mu nekk nee naa la lii moo tax man dinaa wax ba dee man aw ma lenn loo xamante ne dama koy incarné parce que bu la nit ñi bëggee fi mu nekk raw nga ba tax na maa ngi sant ñi nga xamante ne ñooy seetaan émission bi waa Assane bi tëj naa ko bul ma ko dóor dàll bi yow <laughs> Assane bi tëj naa ko. nekk ni yéen a ngi si biir émission Rismon Djizz ba tax na émission bi alhamdulilah si kii yiñ may may talon yi nanoon damaa rey talon la xaw ma yéen a ngi si biir émission Rismon Djizz du ma def lu dul gërëm waa Pétén sen sant leen nuyu door ko tuwaar yi fi nekk grand bàyyil jaay bi te nga sigi naa def sant yàlla bu wér nag yi tey noo tudd man maa ngi tudd Jean Ning Jean Ning waaw waaw Jean Ning yaa ngi ci ban clip ngay maye maye ma Titi nga ne nan Titi ni nga ko waxee dafa neex dolli ma Titi Titi naka naka waaw may ma titi. ma may la titi. titi bi koo siy nuyu. titi bi daal balaa ma koo jox kenn dama koo jox sama chéri. kenn kenn mi ngi tudd kenn caw. maa ngi ko koy may soxol bu sedd guy. may ko sama gaay waa Petersen seen yëpp. waaw Serigne waaw Serigne waa ak Babacar. ak gaay waaw waa Petersen macha allah yëpp maa leen koy may. waaw di ko may daaw de. di ko yaa ngi seetaan émission. saa su ne maa ngi koy contrôle di ko seetaan di ko. nu mu tudd. Rismon Diz. très bien na nga def. Wolof la ça va. déggul Wolof. man déggul Wolof kay. yow ban làkk lay man Awsa laa koy làkk. la mais dégg waaw déedéet dégg Wolof. am na dibi Awsa. waaw am na dibi Awsa kay. fan kii bi nekk dibi bi. Patarasat. Oh, Patarasat waaw. kilo ñaata. kilo 2500 laa ko jaay. du ma semay tuuti ma ñam. waaw non amuñ amuñ amuñ léegi. amuñ ñam waaw amuñ ñam kay. Ah. waaw da ngay ah. waaw waaw nuyu sa xaritu Awsa yi nuyu leen nuñ tudd. waaw Umar. ah Mamadou. moom moom benn la. ñëpp waaw waaw. Ah. waaw waxal lis man ji. non amul. waxal lis. sigil nga lislaam sigil nga sa réew sigil nga lislaam maam fu ñu lay jëleete sigil nga lislaam sigil nga sa réew sigil nga lislaam sigil nga sa réew